tariqa tijaan am nañ dam feuyde bi fëri sara dal am nañ dam kon maa ngi ndokkeel wa wa wa kous TV ci liguey bo rafet bi ngeen di tay nga xam tay xol yeb bég nañ tey tay euh, ba may def appel bi yalla mako def lo rek dama xam ndam la milni fook ñu yëngal nit ñi ba xam fuñ tollu motax ma ma def déclaration bobu ma def hadra bam yag rek ma ma ma dugg ci ma xam mané Sénégal nañ xam ni am nañ dam nañ xam ni am lan la arabatan Talib Cheikh Ibrahim bi ndaxte koo xam ne tey jugee na Sénégal gii comme ni ko waxee léegi papaam jugee na Sénégal dem uji borom ci beneen réew boo xam ne mooy Angleterre te Angleterre xam-xam la fa lépp téere tey ki téere lépp mooy Cheikh kon mu dem àdduna mu fa génne fa àddina kii moom jugee Sénégal. dimbitor rew wow, waaw fi la ma jigen sal bi la ma jigen encore tay nak domam ay awat ci khilafa gi ibrahim radallahu anhu mu tam yalla may ko subhanahu wa ta'ala mu nek ko xamne xol bu yaatu lu am mu ko xamne fiix lu am mu xamne sel la ni koo xam ne àddina yëpp la bëgg moom taalib moom àddina yëpp la bëgg rek du bëgg taalib rek ñëpp la bëgg rek sëñ maa ngi ku effacewul ci àddina bi ko kon xamul ci àddina dara xamul dara àddina moom yàlla kese kese kese kese kese la yonent bi kese la moom amul dara leer yàlla moo nekk ci moom subhanahu wa taala waaye nag laa xarwa doomu Cheikh Ibrahim la ah alwadu sirru abbi doom muy mbootu baayam kon sëñ maa bu defee lu mel nii lii ndam mu defal ko àddina bi yëpp ndam li mu defal ko africain yi defal ko waa Sénégal defal ko waa waa Mbide Cheikh Ibrahim defal ko ak njabootam ci njab ñëwatu ko mooy taalib yëpp ak njabootam lañ kon dëgg dëgg maa ngi seen dabal yoon ndakal baax di wax la mën wax ba léegi rek dama ndam li mën nekk Sénégal sëñ maay bi mu njëkkee ootee Sénégal bi nga ko njëkkee ootel fii mu ñëw fii Dakar daje fi ñu am fa daje boo xam ne xadru jaam fee am loo xam ne mosu fee am laa wax te lu mos am nag bu ñu loo mu ñëw ñu ne gan ko ko fendi kon gan nga fendi mu mu nekk boo xam ne keroog taaliba yëpp kontaan nañ ñëpp dañu nañ mboolem kër ñu xam sax xol ñu ne xaw ñaxe ñaxe sax kër juma nañ ngir ngir ngir loolu subhanahu wa taala kon maa la dëgg-dëgg ñëw na nag pour leeral àddina bi ñëw na euh, yi ñëw na pour teranga yàlla parce que na bu ñu fàtte mukk ne mbinaafoon yàlla ku leen xalab xalab yàlla ku leen ku ahabum ila an fum li xiyaal yi kon daal dëgg-dëgg sëñ maa ngi defatu na ndam ndam loo xam ne Sénégal yëpp ko moom nag maa ngi biir wax Sénégal di wax ne fa généralu يأوي تات الذل محمد ويهبط ربا جل سهلا موحدا فمن سن سيئا غير هذا فسنه سقيم عليل باطل لدو ايدا باي من رويد كو هل كان زدي لن تروا مدد انا قدم صلى الله عليه وسلم سي ماغي دوكال با كو سي تي ماغي بيغي ماغي دوكال با ديكو ديلن سيوت ساك سور ديغي سين ليغي تي ادنا نيم تولو ماغي دوكال با دي ابا زد كيب كو فاي ليغي ابا زد ماغي نوي نيب موي غور موي جيجن موي ماغ موي ndaw موي كون خاو اكون خمغول ييب والسلام عليكم دايو سبرايم maa ngi ndeysaan euh, sama soppe sama xarit sama am di jàmm jameel bu baax ku set ku sell ku xolam libre pour ñëpp koo xam ne xolam tawxiir moo ci nekk muy imaamul akbar mu nga gentleman imam mu nekk koo xam ne. yaakaar naa maxaaraju urufum ku déglu ni muy jàngi alquran da nga xam ne kii yar nañ ko waaye nag moom itam laa xarwa papa moo doon moo moo moo doon baabu hadara mbir mi mbir mi moom laa xarwa moom foo demee rek mu rafet dëgg de voilà c'est ça moom sotti ak neuf rek la six ak neuf rek la imaamu imam Cheikh Tidiane Cissé maa ngi koy ndokkeel baax di ko ndeyu su ma soppe boobu nit jaba yàlla baax boobu ko setl kooku doomu Mawlana Seex Ali Cissé euh, moo nga xam ne moom mooy buntu faydu bi moom mooy nga xam ne mooy buntu taalib yëpp bàyyi waxoon dégg dégg na ko lu rëy lu bëri lu rëy la ko bàyyi dénk bàyyi ko nen neen xoon démb ah a Seex Ali Cissé euh, euh, Cissé yaay yaay ñu taalibe yi te yow yaay imaamu jumaa ji su yàlla jëlee sa doom imaam dana ñëw nekk imaam bu kooku jógee foofu nag ku soob yàlla kon wax dëgg yàlla lii histoire bu rafet la tey kon tey ki soob yàlla kii soob yàlla ci lu kalma kenn tey kan la mooy imaamul akbar imam Saloum Cissé radiyallahu anhu kon sëñ ñu lay ndokkeel baax fara ñu leen di biggee baax lii rafet na lii taaru na lii neex na trop ne tey ñëpp kontaan nañ bis baa ngi fees dell nay wan tànk jër waaye tali baa ngi ci biti ñu ngi yooxu ñu ngi sikar ñu ngi tudd allah bi zikri tatma'innul quluub ba yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi tudd yàlla la la la bàyyi waxoon ba mu demee ba dëgg dëgg de man maay bàyyi maa ngi tudd yàlla boo xam ne kii tudd yàlla xam ne kii mu tudd kan la kon ñu ngi sant yàlla baax sëñ di leen ndokkeel baax euh, kon euh, dëgg dëgg li ma war a wax dëgg dëgg sama xol fees na ba nga xam ne xamul la la war a wax waaye daal maa ngi mbégte seen bi maa ngi ne baax di sant yàlla baax di leen gërëm liggéey bi rafet na ngen l'islam li jotal islam la yu sa waxona na balighu anni wal aya jotan ci won do mu nek ben aya yene yene ngi jotal rek dem ngeen ci ko nga intri ko lepp ngir ngir koy dundu ngir xol nek ben taxul yag dundé ci xam la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam xoli ci ci ngeen guddé beccak ma ngi len ndokel di len zan yam borom sawata def leen jam yalla def la mag mo lol yalla yok sen maqama yok sen liyaba yok sen martaba fanu gudd lol and wer xam xam zaara ko ko barté yalla may al yu bari nga ligel fayda bi xamna sen xol ci nek ma liggel faydu ma ci nek xol yi li ci nek fayda bi rek mo ci nek yene may doole ju ay milliards pour nga liggéeyal fi subhanahu wa taala yàlla ubbi seen seen wërsëg yi naat lool mu de wu set wu sell yàlla yem ne xel mu dal ak xol bu dal ak cër yu wér ak dund gu tey dund gu sell dund gu neex maa ngi nuyu di leen dokk di leen ziara wasalaam jaajëf Cheikh